Thank <laughs> you. toujours dans votre acte du jour de ce vendredi 22 mars 2024 bi nga on est à 24 heures de la fin du campagne électorale qui gënon yabaté dembu gëna ñak ñàkk jom muy Cheikh Tidiane Dièye nekkoon candidat bokon ci 19 yi nga xamanteni sen seen liste définitive bi lañ bokon wara jonganté li nga xamanteni moy élection présidentielle du Sénégal du 24 mars dafa daldi di day retirer candidature pour dem jàppale ki nga xamanteni moy Bassirou Diomaye fay ginnaw loolu nak benen pa bi nga xamanteni tay tey ni jom yi la

conseil conseil wala leen ni que yabaatewu leen man ma len gëna yabate dem len ba le 29 mars ngeen ñew bu élection yi passé ba paré ngeen ñew sogo retirer sen candidat kon donc yakarna ni ki di Habib Sy ak ki di Cheikh Tidiane Dièye la première des choses dañu manquer respect ñi nga xamanteni moy citoyen sénégalais ndax té mëno taxaw askanu Sénégal nga ne dama bëgg jité jiite réew mi nga dem jëli ji sa fiche de parrainage déposer sa caution nga ñew taxaw ak sénégalais yépp nga ne da nga bëgg jité jiite réew mi desul dara lu dul joxé sa programme ak say solution nga dem commencé ba mu des fukki fan nga ne da ngay bàyyi dem rangé wu ci geneen ba nga xamee ni dangay bàyyi bi ñu décidé candidat yi muy pour quoi Diomaye fay bi ñu ko validé yéen ñaar ñëpp désisté wu leen pour que ngeen dem rangé wu si Diomaye Faye donc ce qui montre que sénégalais yi topp seen ginnaaw sax. yéen respecté wu leen leen seen bopp sax bay respecté sénégalais ndaxte dama koy njëkkee ci Cheikh Tidiane Dièye bi nga xamante ne moo njëkk ne moom dafay retiré Cheikh Tidiane Dièye moom nee na avenir Sénégal bi ñu bëgg la bëgg ñun bëgguñu Sénégal bi Sénégal ñàkk jom Cheikh Tidiane Dièye sa baay daf la jur fu mu la war a juree nga xeex jàng dem ba Suisse dellu si am say diplôme Bassirou Diomaye Faye jàng amay diplôme Bassirou Diomaye Faye musul am ambition nekk président de la République ci Ousmane Sonko la nekkoon alors que yow yoroon nga sa benn mouvement boo xamante nga am naa ni tey naa ni gàcceel sa papa moo tax ngay bàyyi yow li nga xamante say ambition dem di rangé wu ci sa moromu doomu góor sa moromu góor muy Bassirou Diomaye Faye ñàkk jom foofu la njëkk a weesoo ba ca topp mooy yàpp sénégalais yàpp askanu Sénégal dèjà li ñu leen defaral ci ay bulletins ret yow ak abix yi suñ ko xaymaa toll na ci 40 millions imaginez plus de 7 millions de bulletins yi defal ko Cheikh Tidiane Dièye 7 millions de bulletins yi defal ko kii ni ci bureau de vote yi moom lañ imaginer lépp ci bureau de vote Sénégal yi dem imprimer leen ko donc ci ñaari fan foog ñu arrêté waat conseil conseil daal di publier waat beneen liste ñu demaat encore tiré waat yeneen bulletin neutre yoo xamante ni moom la ñuy taf ci bureau de vote yooyu war ko yóbbuwaat yi nga xamante ni moo jëm ci bureau de vote yi Sénégal yi jëm dans la diaspora yi jëm dans la sous-région je crois que yëpp sénégalais ak bëgg a retardé lii nga xamante ni mooy processus électoral bi mooy Cheikh Tidiane Dièye ak kii nga xamante ni mooy Habib Sy yaakaar naa ni yabaate weesuwul Habib Sy en tant que un élément du PDS yow li nga def ci biir politique jaarale ko ci biir PDS tey xale bu ndaw boo xamante ne amul benn expérience mu war a bàyyi moom rangé wu ci sa ginnaaw yow Habib Sy nga ne yow yaay rangé wu ci sa ginnaaw Habib Sy gàcceel nga waa Linguère Habib Sy gàcceel nga sa askan Habib Sy gàcceel nga bépp nit boo xamante toppoon na sa ginnaaw nit da am fulla am fayda nit da ngay am jom am loo gëm donc ce qui montre au Sénégalais que Habib Sy ak Cheikh Tidiane Dièye amuñu benn ngëm-ngëm ci Sénégal benn ngëm-ngëm li ñu am muy intérêt personnel maanaam poste yu ñu yaakaar ni war a séddoo suñu jëlee seen doole boole ko ci ginnaaw Diomaye Faye en tout cas muy conseil constitutionnel il les a très bien répondu gis na nag ci télé yi commencé sétane nan non nit ku que am nga sañ-sañ dem ba ci biir nga né non damay bàyyi da nga wara a donc conseil constitutionnel décision bu mu jël xamu leen fu ko tek en ah, tay ngeen di sañ wax parce que Habib Sy ak euh, Cheikh Tidiane Dièye bërki démb conseil constitutionnel bu mu jël date élection le 31 mars mu xam ne que amul sañ-sañ bi lu tax yooyu leen yàbbi ci conseil constitutionnel bi muy retirerou wu di delluwaat ci date bi nga xamanteni Macky Sall jël nako ko lu tax yooyu leen yàbbi ci Macky Sall bu muy jël décret le 6 ngeen xam le 6 jour bi ñu décret bi 80 jours la ñi japp datu élection bi le 24 mars lu tax yooyu leen yàbbi ci biñu jëlé suñu campagne électorale jëlé ko ci 21 jours yobbu ko ci 12 jours lu tax yooyu leen yàbbi ci ngeen di naan ay conseil constitutionnel dama né conseil constitutionnel lu mu len tek fi ba ñuy joxé résultat yi na ngeen ko nangou nañu dem élection nañu dem élection nañu ko nangu en tout cas ki di conseil constitutionnel il a très bien répondu ki nga xamante moy mooy Habib Sy yabaate bay bëgg a Cheikh Tidiane Dieye ñaka jom ñaka fayda ponkal bu toll ni moom mu wara woné ay ambition ci kanamu sénégalais yi nga xamante commencé wol nañ ko gëm sax ci campagne bi pour na sa fait que bu respecter leen ñi xamné ko Cheikh Tidiane Dieye lañu gëm gëmuñu ki nga xamante moy jomay ndaxte mom mo présenté wu ci ñom dossier am la ñu présenté mais ñaka jom wessul ku toll ni Cheikh Tidiane Dieye nga né avenir bu ñu bëgg nga wara défal dossier de parrainage wa pasteur di la defal dossier de parrainage muy tricherie bu nganda abib si ñàkk jom weesul li nga def ci PDS amo benn mbolo bo xamanteni meun na la parrainer benn parrainer Ousmane Sonko di jël ay député pasteur di la ko jox donc ce qui veut dire que yéen ay sous couvert ngeen ay ciog ngeen donc ce qui veut dire que tay 30 30 millions yoy ngeen dougal caution mom ngeen beugone naxasalel di jay nit ñi muusaage pour ko ñu delloo leen da ngeen di dem élections par la force ku ci amul 5% pour cent ñu jël sa 30 millions ñom ñaar déjà 60 millions conseil constitutionnel vous avez bien fait rendez-vous pour Habib Sy ak Cheikh Tidiane le 29 mars suñu ñëwé ñëwee conseil constitutionnel dinañu xool ndax dinañu retirer sen candidat wala duñu retirer sen candidat en tout cas muy li nga dire. dal moy conseil constitutionnel daal di koy jël refuser lepp lo xamante candidat bi di Cheikh Tidiane Dièye ak Habib Sy dal di retiré li nga xamanteni moy ci course présidentielle yi ginnaaw bi nga xamanteni xamlé xamle nañu ko muy ñaari candidat yo xamanteni ñom ci seen ñoo exprimé won seen intention d'aller di retiré wu jëm ci li nga xamanteni moy euh, compétition bi pour soutenir qui di Bassirou Diomaye Diakhar Faye ginnaw bi nga xamanteni élection présidentielle yi prévoir nañ ko le 24 mars mu doon ki nga xamanteni moy mandataire seen ay mandataire fofu ci conseil constitutionnel bu ñoom daal dañu jàpp ni dañuy rejeter li nga xamanteni moy seen demande alors que ken rejeter ko notification de retrait lañ leen def ci course présidentielle bi ginnaw lool dal lañ leen affirmer que lii nga xamante mooy seen requête bi ñu déposé officiellement dinañ leen ci informer jaarle ko ci institution yi ginnaaw bi nga xamante conseil constitutionnel yi le kon yaakaar naa ni kenn rejeté leen bàyyi leen moo yu ngeen di utiliser dañ leen ne dem leen ba mars c'est vrai am bëgg sañ-sañ pour retirer ci élection yi léegi da di xaar ba le mars comme conseil constitutionnel moom le mars la jël élection yéen élection bi nga xamante ni dafa demoon attaqué décret Macky Sall pour ñu baña jël ci élection 24 mars mu sukkandiku ci élection bi nga xamante mom la conseil constitutionnel jël le 31 mars kon xaar leen ba le 29 mars ngeen dem wuy du conseil constitutionnel yow Habib Sy yow Cheikh Tidiane Dieye ñu xol ndax dinañ leen retirer ci course bi wala duñu leen retiré pour que ngeen jappalé ki di Bassirou Diomaye Faye waye ñak jom ak ñàkk fayda weesuwul paa bu tolni ni Habib Sy ak lu mu def yépp moo am expérience war a mën a diriger war a am ambition war a am gëm-gëmu boppam tey mu ne damay retiré wu ci candidature yi pour dem jàppale ji Bassirou Diomaye Diakhar Faye Habib Sy waroon nañ am jom boo xamante ne dafa waroon def ni Anta Babacar Ngom def ni Pape Djibril Fall ki nga xamante ne bërki démb ci presse la jóge dem wuti ji ay parrainage citoyen def ni Malick Gakou def ni Serigne buub waye ñàkk jom Sonko dila la ngay dem ba pare ngay waxee ci turu Sonko yéen ngeen foog ni ban mérite ngeen am Sénégal amulen ben benn mérite abib Sy amo mérite Cheikh Tidiane Dièye amo mérite té dossier de candidature bi ngeen duggal Ousmane Sonko mo len ko duggalal wa Pastef El malik Ndiaye mo la ko defal ak Amadou Ba bu Pastef kon abib Sy amo mérite Cheikh Tidiane Dièye amo mérite vous ne méritez même pas de prendre le micro et de parler devant les Sénégalais yéen ci seen karamu jabar sax da ngeen wara dem waddu ji séer abib Sy si sa kanamu jabar da war a waddu ji seen Cheikh Tidiane Dieye si sa kanamu jabar war a waddu ji seen seen jabar yu sol tubay ndagam léegi da ngeen di topp ci seen moromu góor bi nga xamante ne Bassirou Diomaye Faye bu nga xamante ne bërki démb ci kaso bi la génnee xalaatul woon ni sax danañ valider candidature am taxaw di naan avenir Sénégal bi ñu bëgg yaakaar naa ni boobu Diomaye Faye kenn xamu ko Sénégal Cheikh Tidiane Dieye yow la ñu xamoon donc ana ambition bi nga amoon ana li nga tabaxoon tey loolu yëpp nax saay na ne furees nga ne yaay dem làqatu ji ci ginnaaw nit man de yàlla na ma yàlla musal yàlla na ma yàlla musal may topp ci ginnaaw nit wala di coggu nit man kay nit ak may cogg waaye dafa am ñoo xamante nag yàlla moo leen sàkkee ci àdduna bañ leen juree lañ leen juree ñu doon ay proposition si voilà wala que sous couvert ñoo xamante sous couvert rek lañuy dund en tout cas gatché soul yapp sénégalais yi weesuwul jël suñu 140 millions ñu defal leen ko ay bulletins dugal leen leen ko ci suñu xaalis ba paré ngeen naan da ngeen di alors que yeen seen ñaari caution ça n'a fait que 60 millions mais je crois que le prochain président amne mission bu reuy jëmale ko ci élection ngay de parrainage da ngay déposer sa caution c'est so xasse ba jël fiche bi benn nombre soko amul perte nga sa caution suñu defee noonu dem en tout cas muy li nga xamante moy retrait candidature qui Habib Cheikh Tidiane conseil rendez-vous inshallah après élection yi le 29 mars ñu discuter ci li nga ndax war nañu retirer sen candidature wala ko retirer.